waaw asalaamaaleykum di ñëwaat nag ba tey di ñëwaat ba tey man maa ngi ko waxoon si affaire Serigne Cheikh yooyu noonu ñuy def rafetul affaire yooyu noonu parce que affaire bi ñu xam ne ñëpp si jot quoi YouTube la réseaux sociaux YouTube la ñëpp si jot donc wax yi dafa rafet wax yi dafa rafet moo tax ni wax bu yenn wax yi da ngay da ngay déranger ñu bëree perturber ñu bëree surtout fans si porté dafa metti sëñ sëñ yi man sëriñ si laay waxal ba tey quoi sport dafa métti sport dafa métti bu gisee lenn nga xam ne yàlla wan na la ko am na la am yàlla may na la gis-gis yaa ngi koy gis safaan bi ñëw dindi nga koy waxee quoi waxal lii moo koy dindi ak lii moo koy dindi mais bu ma cherché dinaa ko mën a dindi est du ay dóor maa ngi jégalu ah. su ma cherché xam naa lu koy dindi ba jàmmam loolu est-ce que du ay dóor soxla si millions yu bëri laal cent et quelques yi rek nga bëgg ropp si dara quoi di ñaanal Modou Lo ndam ñaanal Modou ndam bu sedd guy bu amul benn problème quoi si beneen adversaire bi bu ko daanee pas ay lu may dégg lii yi quoi man gëw ma ko ba tey gëw ma ko de mais pas daan na Balla Gaye Balla Gaye am ay difficulté non non non non ndam bu mu koy naan ndam xam te ni kii ndam bu sedd guy bu set wécc waaw daan ko le treize dem parcelle fekk ci ko. Balla Gaye nekk ci jàmm bu amee beneen combat yàlla may ko ndam waaw loolu ñu bëgg quoi waaw fair play fans tamit di leen ñaanal fair play waaw fair play daan su mbër xam nga nga dawal ci fair play quoi pas de violence waaw pas de violence di leen ziar maa ngi Nouakchott waaw lamb ji nag ñu mën a seetaan nañ nekk si YouTube en direct xaw ma si yeneen site ay code fii xamul man xaw ma sax na laa amee làmb ji man xaw ma na laa ko amee xaw ma Facebook xaw ma je sais pas nu may amee làmb ji tànk ko dafa métti ah mooy waroon nañu calculer ñu nekk ñi extérieur ah bu baax. surtout fii Mauritanie ah fii Nouakchott fii bokk ni clair Mauritanie fii xam nga fii moom du ñuy dund làmb et puis y' a beaucoup d' étrangers Sénégal Sénégalais yu nekk fii ay millions yi ngi fii donc war nañu calculer waa Nouakchott aussi waa Mauritanie war nañu leen woon calculer waaw ba tey rek di wax seen liggéey rafet na quoi Zapping Sénégal di jégalu nag wax ji dérangement bu amee dérangement maa ngi jégalu quoi mais nu ñu bàyyi dóor yi quoi bu dee ay dóor la rafetul ko nu ñu ko bàyyi waaw ñu wax wax bu rafet affaire bu YouTube la wax ji lay rafet waaw siyaar ak màggal bégee